waaw memang Mbacke Ball si single bi. abu ah waaw xanaa ñu kii rek nga xamal fa ni Abdoulaye dafa xat. Eh. Abdoulaye dafa xat te mi ngi ci album bi xam nga donte hmm, ñu rek. ah gars ñu leen di xaar rek dinaa ko contacter. gars ñu leen di xaar Mbacke. ah yéen a ko tàmbaloon de. ko def ah moom fan yii moom mi ngi mi ci album bi. ah ñu leen di xaar album dafa métti dafa mu eh. laaj. Mhm. waaw doo dallu xam nga nekk di studio di fa lu nek man dama ko woo sax fan yi ko jot. ah moo ma jaaxal. lu may wax gay ba kon da ngeen na repose ba déwén. ah waaye ku tedd gi na mom bu soxlaa. deug yalla ñeppay ñak